bii fi daje bokki jullit maa ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mamadou Mountakha mi borom dëkk bi di boroom liggéey bi te moom ngeen doon liggéeyal ba liggéey bi toll ci ñu war leen a jaajëfal wala leen a sant maa ngi leen di nuyu ci turam ak turu Cheikh Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne mooy loxoom yor kàddoom waaye di taxaw liggéey màggal gi boobu nag sëñ Muntaxa sëñ Basiiru dañ ko mën dañ ko jaarale ci man Cheikh Mbacke Abdou Latif mi àndoon ak yéen liggéey bi waaye liggéey bi ñu ngi koy njëkk a ji président Abdoulaye Sylla bi nga xam ne mooy kii moom moom société bii di Ecotra te pasefam ak kàddoom yaatu lool te yàgg lool yéenam ci Touba mu yàgg koo wax yàgg koo jëfe yàgg koo wane ci Cheikh Mamadou Lamine Bara ak sëñ Sidi Moxtaar ba ci sëñ Muntaxa waaye muy wane ko itam ci bëggum dëkk bëgg dëkk bi ak yéene gum yéene ci defar dëkk bi ci ah, moo tax ba ci anam année mille neuf cent deux mille dix-sept mu yebal ci leen keroog ci bis bi ma leen njëkkee gis kàddu yi moo ma waxoon mu jógee ci moom ba léegi maa ngi koy gis ñu di ko jëfe mu di leen booleeg kilifa yii muy asante la mi nga xam ne sama jarbaat la sama xarit la waaye rakki Ablaye la moo def ko directeur de société bi di leen booleeg sëñ Alpha nga xam ne mooy magum kër gi magum bokk yi fi nekk yëpp di liggéeyal Ecotra ñu leen boole at bu jot ngeen di ñëw ci liggéey bi Abdoulahat mii di sama doom di sama jarbaat dox sama digg ak yéen ma boole leen puy mii nga xam ne moo ànd ak moom ci liggéey bi yor liggéey bi lépp bi ñëwee ba léegi ma it ma boolewaat leen ak Serigne Issa Mbacké ak Cheikh Abdou Mbacké sama doom ñu ànd ak yéen ci liggéey bi nuyoo bi bala maa sori ci wax ji dafay njëkk a jottali nuyoo bi sëñ bi daa wax ne mi ngi nuyu Abdoulaye Sylla ak membre yi ECOTRA yëpp ak équipe bi yëpp ñu ñëw ak ñu ñëwut waaye beral ab nuyoo ak cant nag équipe bi fi nekk ni ñu nekk taxaw ci naaj yi noonu la noonu la ñuy liggéey ba ñëwee ba léegi bu ñu xëyee fajar ba xaaj muy taw ak lu mën a xew ñu ngi ci terrain bi ñu liggéey bi ñuy diglu sunu kàddu ci lu ma ko bëggee ñu ànd ak man te ni ma ko bëggee mooy ni ko sëñ Mountakha bëggee sax bas Abdou Khadre bëggee ko noonu man itam sama baat bu ma ko joxee yi ma fi nekkal muy sëriñ Issa Mbacké jaar ci Cheikh Abdou jaar ci Abdoulaye jaar ci Pouy bu jàll ci waa liggéey ñeneen ci liggéey bi ñëpp kenn ku ci nekk bu xasee dégg ay cee rek mooy ay cee jeew feeg néew ñu nañ noppalu duñ taxaw duñ noppalu lekk sax ma nañ ko bañ a def dama leen di méttilu ak leen ma sax waxtu bu nekk ci dañu war a lekk duñ lekk war naan duñ naan te lii seen yitte muy liggéey bi ñu defee ko ni ko sëñ bëggee kon même ci nekkal sëñ bi maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp xam leen ne ngeen def sëñ Mountakha gis na ko sëñ Touba gis na ko waaye yàlla gis na ko yonent bi gis ñëpp nañ leen fay ngeen ci fay di tàmbalee ji président Abdoulaye ni ma ko waxee ba ci suuf yéen ñëpp ñoo ngi ñaan sëñ Touba fay leen kenn ku nekk ya ñaxam ak yéeneem ak jëfam ñu fay leen ngeen ci fay liggéey bi rafet na. rafetlu naa ko lool dëkk bi ñu waa dëkk bépp ñëpp waa xale yi xam nañ Ecotra ba bañ nañ ko bu ñu bu sax dañ ne dama bëgg waa Ecotra yi dimbale ma te waa Ecotra itam ba ma ko waxee Cheikh Abdou wax ko sëñ Issa sëñ Issa waxaat ko ñii waxaat ko Puy waxaat ko ñu ci jox ndigal da nga sawar lool da ngay ànd ak xel ak positif ngay ànd dem ci liggéey bi ñu ngay dem ci liggéey carrière ba ñu yor peel yi ñu yor oto yi fi ñu war a sa wàcc suuf dañu ko wàcce fa peel war dem dem fa ñu ci noonu kabaral ak ak matériel bi bi mag itam noonu la ñu taxawee taxawaay bu rafet kon kenn desut ñëpp taxaw nañ liñ man lépp def nañ ko waaye li leen wax rek bi ngeen koy def yàlla mi nga mi ngi leen di gis ànd ak yéen sëñ Touba mi ngi leen di gis ànd ak yéen sëñ Mountakha it mi ngi koy yëg mi ngi xam fi muy toll ndax ñu ngi koy leeral Cheikh Bass Abdou Khadir mi nga xam fi muy toll ñu ngi koy leeral ba ci Cheikh Bass ci kilifa yi Tuubaa la am koo xam ne day xa bëgg yàkkamti ñu dem ci mbiram ci Cheikh Bass day yónnee directement Cheikh Bass yónnee ci man directement ma wax ko bu ma ko waxee itam niñ ko waxee niñ ko bëggee ne koy defee kon ñu koy defee niñ ko bëggee dara desu kon ak cant rek mën tawees cant sant naa leen baax a ba gërëm naa leen ci turu sëriñ bi sama xol sedd na te sama sama xol seddee mooy sëñ bi daal sedd na Cheikh Bass Abdou sedd na mooy sëñ Tuubaa xolam sedd na te man sama xol sedd na bu baax jërëjëf jërë ngeen jëf. di tudd Alpha Samb di ingénieur polytechnicien génie civil di directeur technique bu entreprise Ecotra di waxtaan ak yéen ci juróom-ñetteelu édition boo xamante ni bi président Abdoulaye Sylla président directeur général bu Ecotra da koy def at mu jot. jàppale sëñ Touba jàppale sëñ Mountakha mi fi toogal sëñ Touba ci kaw suuf di ko ñaanal yàlla na fi yàggate weer eh, ni ma ko daan defee at mu jot ren di juróom-ñetteelu yoon mu yebal ñu yebal eh, personnel Ecotra yëpp jël matériel bu mu am yëpp ne nañ ko indi Touba teg ko ci loxo sëñ Mountakha noonu mu ñu ko daan digale noonu lañ ko defee ren indi nañu fi matériel bu bari bu boo xamante ni bi euh, jàppale na sëriñ bi lu jëm ci euh, gàttandu ndox mi ndax yàlla dafa dogal ren euh, màggal gi nekk ci biir nawet jàppale nañ ci sëriñ bi ci setal dëkk bi jàppale nañ ci sëriñ bi ci defar yoon yi mbedd yi jàppale nañ ci sëriñ bi ci fépp foo xamante ni fii dafa nekk zone buy taa ñu mën fa yóbbu suuf euh, ba faj boobu tawat pour loolu ñu mën ko def ah indi nañu fi matériel bu bëri li ñuy wax engin de terrassement mu jëm ci ay bulle ay gradeur ay compacteur ay chargeur indi nañ ci lu mat fukk ak juróom unité indi nañ fi lu mat juróom fukki camion benn yoo xamante ni yi ànd na ay camion euh, citerne yooyu manque ndox ak di yóbbu ndox a ah, indi nañ fi lu mat téeméeri nit yu manque juróom quatre-vingt-quinze personnes mobilisé nañ leen indi leen fii ci Touba ah indi nañ fi ay citerne gasoil lu tool ci soixante quinze mille ah, pour man def liggéey bi ah loolu yëpp euh, président Abdoulaye Sylla indi fii ci Touba nekk na loo xamante ne lu mu xeeb la ndax bu sañoon mën a def lu raw loolu mu ne ñu li ngeen indi yëpp ngeen demee teg ko ci loxo sëñ bi. ba ñu koy indee sëñ bi ci mu ñu daan boole at mu jot di suñu sëriñ di suñu wasila di suñu kilifa muy Cheikh Abdou Latif Mbacké mii mu dalal ñu na mu ñu daan dalale dalal ñu gën bu dalal bu gën a rafet gàttanduñu lépp loo xamante ne li war nañ ko def sant nañ ko wax nañ ko ñu jëloon liggéey bi yëpp teg ko ci loxo ingénieur bu génie civil muy aadama Pouy ah, ku ñuy wax euh, kilifaam di dariyo mu yore département infrastructure foofu mu yebal ko mu ñëw fii ànd fi ak euh, suñu suñu mag suñu xarit bu baax di caporal caporal si mu nekk spécialiste ci question de pompage nekk hydraulicien bu mag nekk électricien bu mag donc ñooñu ñëpp ñu teg ko ci loxo sëñ Abdou Latif mi mu digal ñu lépp loo xamante ni war nañ ko def sëriñ bi wax na lépp loo xamante ni li sant na leen ko lépp lu ñu leen doon sant nee na leen li ngeen ci man guddi ak bëccëg suba ak ngoon na ngeen ci taxaw parce que Abdoulaye Sylla moom loolu la am yéene ci sëriñ bi lu mu am lépp nee na moomu ko sëñ Tuubaa ko moom li mu bëgg lépp mooy lépp lu mu def dëppoo ak li nga xamante ne Sëñ tubaa bëgg na ko bu Sëñ Tuubaa bëggee ci li mu li muy def rek moom ajowul ñu di ko gërëm ajowul ñu di ko sant am na li mu bëgg loolu nag pas-pasam la te du ci génn benn jamono du suba du ngoon du guddi du bëccëg li nga xamante ne def nañ ko fii ci dëkk bi gàttandu sëñ bi ci yooyu ma lim ci ay xeetu liggéey xeem nañ ko te dañu continuer di gàttandu sëñ bi ba màggal gi jeex fii lañuy toog ànd ak moom bu màggal gi jeexee daañu toog ak moom wax benn benn ay bés pour que lépp loo xamante ne bi des na ci dëkk bi ñu war ko setal war ko defaraat ñu defar ko balaa ñuy delloo bagage yi Ablaye Sylla nag mu ngi sàkku ñaan rek na ko sëñ bi dool di ñaanal ba lépp lu mu am mu jëtal ci sëñ bi lépp lu mu man mu jëtal ci sëñ loolu rek lay ñaan suñu borom nee na lépp lu mu def mu dëpp bëgg-bëgg sëñ bi rek lépp lu mu bëgg am na ko yàlla na yàlla gunge ko ci loolu xale yi nga xamante ne ñëw nañ fi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay na li ngeen def loolu Abdoulaye la doon séntu si yéen président Abdoulaye la bëggul woon dara si seen toogaay si seen taxawaay loo xam ne di ngeen ko fi def mbaa ngeen wax ko fi te dëppoowul ak lu neex sëriñ bi te sëñ bi ni mu nettali seen toogaay fii ci dëkk bi taxawee ak pas-pas ngeen ci àndal kontaan nañu si lool dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ ko yeggee moom président Abdoulaye Sylla ah di leen gërëm di leen sant bu baax a baax tout le personnel de Ecotra ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm sëñ bi nag dañ lay beral ñaan dañ lay ñaanal di ñaan suñu borom doole dëgëral si taxawaay ni nga ñu wéttalee ni nga ñu gungee ni nga ñu taxawee gis nañu ko te yàlla xam na ne dinañ ko wax président Abdoulaye Sylla loo daan def démb ak barki démb at yi paas taxawaayu ren bi raw na ko yal na yàlla dool dooli dëgëral ñu dool dooli ñaanal sëñ Muntaxa mooy sëñ Tuubaa yal na yàlla yàggal ko si suñu kanam yokk ko wéram dëgëral taxawaayam lii mu yéene ci njaboot gi yal na ko ci yàlla jàppale yal na ko yàlla jàpp ci li mu yéene ci njaboot gi yëpp ñu koy ñaanal bu baax te di ko yëgal ah président Abdoulaye Sylla nee na de lu mu def ci Touba defal ko mu taxa defal ko njabootu sëñ Touba xeeb na ko lu mu def rek xeeb na ko yàlla xam na ko donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal di sàkk ngeen ñaanal ko bu baax la presse ñu ngi leen di gërëm bu baax gis nañu ni ngeen taxawee ah, ndax li ñu fi def baax na nit ñi yëg ko nit ñi gis ko ndax lu baax la di ñaan yàlla képp koo xamante ni ki yàlla man loo na la nga ñëw jàppale ci liggéey Sëñ Tuubaa bi loo ci def sa bopp nga ko defal loo ci def rek sa bopp nga ko defal yàlla na yàlla fay ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen xéewal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu